asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñi ngi sant yàlla sunu boroom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasalam di sant na Alxadim di dellu siwaat ngir wéyal waxtaan yi nga xam ne baaxoo nañ di ko def ci àjjuma ju ak altine ju ne ngir baaxee ko bokki taalibe yi ngir ñu mën see jariñu lépp di ay ndénkaan yoo xam ne sëriñ bi moo ko daan def di ko jëmale ci mbindeef yëpp fii nag tey nag ñu ngi tollu ci fi muy waxee ci ak njàmbaar mu wax ne ak njàmbaare mi ngi ci topp ndigalul yàlla waaw mu doole ak daraja nee mi ngi juddoo ci topp ndigalul yàlla waaye yambare te muy ak ragal ak néew doole ak ñàkk am ndimbal mu ngi juddoo ci def li yàlla tere ndax bu ñu demee ci alxuraan da ngay gis ne sunu borom day wax ne ma li zalimina min ansar ñiy tooñ amuñu kenn ku leen di dimbali mu dala wax ne sunu boroom wax ne ci alxuraan wa isqulna lil malaikati isjudu li aadama fasajadu illa iblisa aba mhm. nee na bi yàlla waxee loolu te mooy sujjootal leen aadama yéen malaayika yi nee ki njëkk sujjoot mooy seyduna jibril waaye ki njëkk lànk sujjoot maanaam ki nga xam ne moo moo moo bañ sujjóot ga mooy iblis bañ nga mu bañ sujjóot ga nag tax na mu jural ko ak yambare jural ko ak doyadi maanaam ak néew doole jural ko ak ñàkk daraja moo tax yàlla wax ne inna kayda shaytaani kaana daifan seytaane day am pexem du doon pexe mu dëgër mhm. jibril ma nga xam ne nag dafa def ndigalul yàlla gis nga la ko ci yàlla faye mooy eh, daadaadi doon ko jàmbaare daadaa di am kattan daadaa am daraja moo tax yàlla wax ci jibril di quwatin inda zil arsh makin mutain famma la di ko am daraja am maana doon koo xam ne ne daal maana ñëpp ñu ngi ci gannaawam ba noppi doon ko am sécurité ku am kóolute ci lañ koy def la te loolu lépp mi ngi ko amee ci topp ndigalul yàlla loolee rek waaw mooy sujjóot moo tax mu ne ci maanaam moomu nag ci yow mi am xel tey xalaat da ci dégg ne kon ndeke yàlla bu la santee lam la sant nga gaaw def ko te te te bañ a gestu leneen waaw am na doo gestu leneen yow da ngay def ndigal rek nekk ca nee su boobaa da xam ne njariñ njariñ dëgg dëgg dëgg ma ngi la képp kuy xalaat boo xalaatee ci loolu nga xam ne njariñ dëgg mi ngi ci gaaw a def la yàlla sant te bañ a gëstu leneen moo tax suñu borom wax ci alxuraan wa ajiltu ilayka rabbi li waaw ñëpp ñi ngi daw waaye nag man maa eh, njëkk ci yow maa maa gaaw gaaw jiitu ci pour bëgg nga gën maa yokk ngërëm mm-hmm. moo wax ne yi baax jëf yu baax yi mooy ñami àjjana waaye jëf yu bon yi mooy ñami sawara waaw sawara ak àjjana lu ci nekk dafa am ay ñam dafa am ay lekk yoo xam ne nii moom lay dunde mu ne nag jëf yu baax yi mooy ñami àjjana waaye jëf yi jëf yu bon yi mooy ñami sawara mm-hmm. mu ne loolu nag li koy tegtale mooy guddi gi ak bëccëg da dañoo mel ni ay ndaw ay ndaw hmm. ay ndaw yoo xam ne suñ borom moo leen yebal ñu jëm ci muskalaf yëpp ci nit ñëpp moo xam góor nga wala jigéen nga walla jaam nga wala gor nga hmm. ginnaaw ay ndaw lañ nag te ci nit ñi lañu jëm dañuy dem moo tax nag léegi bëccëg bi bu ñëwee day daal di wax kañ ko booleel ne ko léegi jox ma lépp loo xam ne bu ëllëgee yomal xeyam bëgg nga ko fa fekk bëgg nga ko faa gis jox ma ko waaye nag bul ma bul ma jox bul ma wan loo xam ne nii euh, bëggoo ko faa gis bu jant bi soo nag ah bëccëg bi day daal dem waaw maa day daal dem léegi nag buy dem nag dana day day romb ay ay mbooloo yu baree bari malayka yi waaw bu ko defee mbooloo yi romb nag dañ naa ko waa ana diw ana diw ana ay jëfam noo ko fekke noo ko bàyyee su boobaa nag bëccëg bi daal leen di wan jëf ya mu jëf ci bëccëg ba képp mu daal leen koy wan ne leen mi ngi nii nee na léeg-léegi nag xam nga dañ ko laaj noo ko bàyyee noo ko fekk mu ne ah léeg-léegi nag buñ ko laajee loolu mu ne ah man de eh, maa ngi ko bàyyi nag muy nelaw wala maa ngi ko bàyyi muy fo wala maa ko bàyyi muy waxtaan waxtaan ci aw waxtaan rek la nekkoon wala maa ko bàyyi mu doon def loo xam ne daal mënu mu ko tudd fii waaw ndax nu mu nu mu bone wala nu mu garaawe mhm. bu fekkee nag guddi gi ñëw na nag xam nga bëccëg bi dem na léegi guddi gi bu ñëwee nag ba tey guddi gi moom it day daal di ñëw ci kañ ko booleel waaw su ko defee daat koy ne bu ko defee bu ko defee daadi koy wax moom it Euh, la bëccëg ba waxoon kañ ko booleel ne ko lépp loo xamee ne ni daal bëgg nga koo fekkee yow ma xeyam jox ma ko muy sa marchandise muy bàlleel la ko waaye loo fu bëggatu gis nag bul ma ko jox loolu la koy wax bu ko defee nag léegi bu fajar fe euh, fenke bu bu demee nag ba fajari ñëw nag euh, guddi gi da koy daal di tàggu daal di dem moom it buy dem dana am ci malaayka yi ci mbooloo yi ne ci yoon bi ñoo ñoo xam ne daf leen di romb su leen rombee ba tey dañ koy wax nag waa ana sa waaja lu mbax nag lu mu def nag lu mu yéene nag mu daal leen di nattali mu daal mu daal leen di nattali la mu nekk woon waaw ak na mu ko bàyyee waaw maanaam ak la mu ko bàyyi mu di ko def bu fekkee aw yiw la ah mu ne leen aw yiw la laal man dal lu baax laa ko bàyyi mu di ko def bu dee safaan it mu ne leen ah moom ka maa ko bàyyi muy def nangam ak nangam léeg-léeg sax mu ne leen ah moom day bàyyi naa ko nag muy def loo xam ne nag xalaatuma ko tudd fi du ko wax daal ndax ñaaw na wala bon na ci banaay koo xam ne du ma ko tudd mukk ci seen kanam ndax loolu du xam nga dalee dalee na romb léegi nag bu demee nag bu demee nag ba àgg fa boroomam nag da koy daal di wax ne ko moom moo xam guddi gi la wala bëccëg bi da koy daal di wax ne ko lii kat mooy jëfi diw doomi diw waaw jëf jaa nii su ko defee nag suñu boroom daal di digle ne nañ ko euh, teg nag ca bàmmeelam ba keroog muy ñëw moom mi jëfoon jëf ci su fekkee jëf ja jëf lu jëf ju baax la bu ñëwee suñ boroom day daal di wax malaayka yi ne leen kii nga xam ne ñëw na day ñëw na léegi de eh, na xam ne jëf jii mu jëfoon waaw maanaam kii nga xam ne ñëw na léegi de na xam ne lam doon jëf sama jëmm rek moo tax mu doon ko jëf ba tax na kon gërëm naa ko li ma bëgg ci moom nag mooy mu daal di noppalu kese laa bëgg ci moom maanaam mm, noflaayal ko kese laa bëgg ci moom waaw kon man maay jëfam ndax man ma man maa taxoon muy jëf waaw nee na su ko defee eh, ñépp nag daal eh, waaru yéemu ci jëfam ju baax ju rafet jooju waaw mu ne leen nag kon na ko waajalal bu baax a baax waaw mu tëdd tëddinu yaatu woo xam ne eh, mooy mooy gën a yaatu lu ab gis maanaam lu bët di gis maanaam dañ koy yàkkalil bàmmeel ba mu tëdd fa tëddinu yaatu waaw nga xam ne bàmmeel bi na muy yaatoo mooy gën a yaatu lu bët di gis waaw fa bët yem daal ci borom xol di gis na muy yaatoo bàmmeel bi moo ko gën a yaatu hmm. bu ko defee nag bu ñëwee nag ñu daan na ko waaw kay kon nag bisimilah fii daal ñu ngi lay yaatal ak yaatal yow jaam bu baax bii sa jëf jaa ngi nii kon nag nanga tànn lépp loo xam ne bëgg nga ko rek fii pour mu wërtali fi na nga ko tànn boo ko waxee rek loole ñu daal la koy andil nam gën a gaawe ndax yàlla lépp nga fi moom nee na su boobaa nag moom it mu daal di tànn la ko soob nee nañ ma indil nangam ak nangam ak nangam fa changé ñu daal koy indi suñ demee nag ba wal buftu bi mu bëgg nag loo xam ne eh, daf koy war wala lu muy sol nee na jëf jëm doon jëf jëf joojee mooy daal di wëlbatiku nekkaat warukaayam maanaam waruwaayam wëlbatiku nekkaat mbubb mu muy sol su ñëwee nag ba fa ñuy taxaw nga xam ne léegi jant bi moom muur nañ ko tàngoor bi nag tàng lool jëf ji mooy wëlbatikuwaat nekkaat la koy tiim maanaa di ko jox ker ba tàngoor wi du ko mën a lor bu ñu nee dañuy jéggi siraat ba tey euh, loolu nga xam ne euh, mooy jëf jëm doon jëf xam nga wax waxoon na la ne mooy nekk waruwaayam kon jëf ci mooy daal di ñëw nekk waruwaay bi nga xam ne ci ci lay war pour jéggi siraat su boobaa nag bu ca waree day daal di naaw ak moom rek daal di jéggi siraat fa sansa mu daal di mucc ah daal di naan nag ca déeg ba ñuy wax alkawsar waaw loolu nag bu ko xasee def nag dootu amati benn soxla nag dootu amati nag lenn lu muy def nag lu dul rek daal di dem dugg ci këram nga xam ne bu fa xasee dugg moom jeex na nga xam ne mooy aljanna waaw te kër ga nag mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy jëf ci maanaa jëf ci mooy wëlbatikuwaat doonaat jëmmi kër ga muy dëkkee ci biir aljanna nga xam ne kër lay doon goo xam ne du ràpp du lakk te bu fa nekkee du faatu du xiif du mar du fa yëgu tàngoor du fa yëgu sedd moom dal tubaarkàlla asaadana allahu fi daarin amin kon kooku mooy ki nga xamee ne nii jëf na te jëf ja mu jëf jëf ju baax la léegi nag kii nag mooy ki nga xam ne ñëw na te jëf ja jëf ju bon la waaw Euh, ñëw na indil sunu borom jëf ji moom bëccëg bi wala guddi gi waaye jëf ja jëf ji bon la ne su boobaa suñu borom day daal di wax ne da koy daal di wax ne ko demal ca bàmmeelam demal ca bàmmeelam boo de boo demee nga def fa jëf ja maanaam nga bàyyi ko fa su ko defee nag moom bu ñëwee moom mi doon jëf-jëf ju bon jooju bu ñëwee ca waxtu ba mu faatoo bu ñëwee nag léegi te fekkul woon mu tuub xam bu tuubee ci diggante bi yàlla mën na ko jégal waaye nag bu fekkul nag mu tuub ba faatu suñu borom day daal di wax malaayika yi ne leen jaam bii day mooy ki nga xam ne moom da doon daw boroom boroomam di dellu ci boppam maanaam ci boppam rek la nekkoon ak bànneexam fi mu ne nag mu ngi nii mënatutoo rëcciti fenn agsi na bu ñëwee nag na ko dóor na ko tënk na ko yeew bu ko defee nag léegi bu demee bay faatu moom jaam boobu ki doon jëf-jëf ju ñaaw bu demee bay faatu nga xam ne ñu ngi xëcc ruu gi banneex banneexu araam maanaam yu araam yam doon def banneex bu mu ci doon foofa nag lay taqaliko ak banneex boobu su ko defee banneex ba danaa ko ah, fi ne nag lu weesu tey moom dootoo amati banneex bu mel nii dootoo ko amati moom banneex moom jeex na waaw bu ko defee daal di dem nag bàyyi ko waaw banneex bi dem bàyyi ko nga xam ne dootoo amati banneex moom mhm. suñ ko buñ ko suulee nag ba malaay kii ñëw ndeysaan du def lu dul nag day daal di jooy waaw daal di bëgg a daw waaye nag su boobaa du mën a daw ndax bàmmeel bi moo koy tàpp moo koy bës bës goo xam ne nii meen day day day day day day tar ba la mu soow ma mu nampe woon ca yaayam soow moom soow moom day daal di génnaat yàlla yàlla ci loolu mhm. wax na ba tey ne bu ëllëgee yowmal xiyaam ba ñi ñi fi jiite woon ak ñi fi mujjoon ñëpp teew comme ni ko alxuraan waxee qul inna al awalina wal axirin la majmaun la majmaun ila miqaati yawmin maalum nee na su boobaa jëf yu ñaaw yi ak jëf yu rafet yi jëf yu ñaaw yi ak jëf yu baax yëpp dañ leen di boole teg ci bërëb ñi baax ak ñi bon ñëpp kenn ku nekk ñu boole la teg ci maanaa ñu boole leen ci benn bërëb bu ko defee nag indi aljanna ak sawara su boobaa nag suñ borom day daal di wax àjjana ne ko yónneel ca jëf yu baax yi yónnee fa ndaw waaw ndax ndax ndax kat jëf yu baax yooyee mooy saw ñam yow aljanna nee na bu ko defee aljanna daal di yónnee ndaw waaw ndaw loo xam ne moo koy indil jëf yu baax yépp hmm. bu jëf yu baax yi ñëwee nag aljanna daa di woo ñi baax ñépp ne leen ñëw leen bu ñëwee mu ne leen lii mooy seen lekk lii mooy seen ñam waaw bu ko defee moom sawaraat day daal di yónnee ndawam ca jëf yu bon ya ndaw la daat koy indil jëf yu bon ya far fos nga xam ne moom ala kulli xaal day ñëw waaw benn mu ñëw ci coobare wala mu ñëw ci <laughs> ci doole waaw mu ñëw ci coobare wala mu ñëw ci force bu ñëwee nag ñi bon saay-saay yi ñu woo leen bu ñëwee ñu ne leen ah sawara ne seen le seen seen seenu ñam seen seen dund seen seenu lekk mi ngi nii waaw fii ba tey muy wax ne alxaqu yaalu yaalu abadan wal baatilu yaxfidu abadan dëgg toujours mooy kawe waaye caaxaan moom toujours lay suufe rek ba tax mu ne dëgg day yëkkatiku ci yëkkatiku yàlla maanaam yàllaa koy yëkkati moo tax muy yëkkatiku di di di gën a kawe di gën a kawe di gën a kawe fa dem ba fa nga xam ne fa la kaweyam mu yem fa waaw waaye caaxaan it day day day day day suufee rek waaw ndax yàlla moo koy suufeel di gën a suufe di gën a suufe baa nga fa suufe yam mu daat fa yem maanaam nag sawara li mu a wax mooy képp ku ne ci lu baax ne ci lislaam ne ci dëgg na nga xam ne saa bu ne da ngay gën a yëkkatiku rek di gën a yëkkatiku ba keroog ngay àgg ci aljanna yi gën a kawe ndax foofu la ak yëkkatiku yam waaye ku ne ci lu bon it ci ay caaxaan it da gën a suufe rek di gën a rëppeelu ba gën a àgg ca fa ak suufe yam te mooy sawara sa gën a suufe hmm. mu dellu wax ne euh, ndigal topp ndigalul yàlla euh, boo ko xoolee ay mbégte moo ko ronu maanaam ay ay mbégte moo ko taawu ca suuf ay mbégte yoo xam ne nii daf lay reeloo waaye ñàkk a topp ndigalul yàlla soo ko xoolee ay lor yu lay jooyloo moo ko ronu ca suuf hmm. moo tax mu ne ko ndigal yi mooy mooy ndabi mbégte yi waaw yi mooy ndabi mbégte yi hmm. waaw te mbégte moom kenn ku ne xam na ne xéewal ak teraanga rek lay jox borom waaw kon ndigal ndigal yàlla yi mooy ndabi mbégte yi waaw nee na moo tax suñ borom wax ne indi akramakum indallahi atqaakum ki gën a tedd fa yéen mooy ki gën a ragal yàlla waaye xetti ndigal yi te mooy nekk ci tere ba tey mooy ndab mooy ndabi lor yi waaw kon képp koo xam ne yaa ngi ci yàlla tere xamale yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi <clears throat> maanaam yaa ngi jëfandiku ci ay lor te nee na kenn ku ne xam na ne lor moom euh, la muy dikke boroom mooy ak fayantoo rek waaw maanaam saa yu saa euh, euh, nit ki nekkee ci jafe-jafe na xam ne bu bu bu bu bu nekkee ci lor na xam ne moo ko teg boppam ndax moo nekkut ca lañ ko digal ba tax lor ñëwal ko ca inna minal mujrimina muntaqimun mu dal wax ne képp koo xam ne daw nga jëm ca yàlla lépp loo bëgg day daw wut si la waaw lépp loo xam ne ragal nga ko wala bëggoo ko loola day daw wuti keneen waaye yow moom du la dëgmal wax ne képp koo xam ne ba nga mucc ci aw ay ni ngay def mooy da ngay sori aw ay ku bëgg a euh, ku bëgg am lu baaxit dangay def lu baax waaw nee na ku bëgg a def lu baaxit maanaa koo xam ne danga ngaa bëgg feeñal njekk feeñal lu baax nanga nga ko feeñale ci def lu baax waaw képp koo xam ne dangaa ngaa bëgg a suul lu ñaaw lu banit nee na na ko suule ci def lu baax waaw mooy wala tastawi wala sayatu idfa billati fi may wax ne àddina ab jaarukaay la ab rombukaay la waaye àllaaxira nag mooy euh, bërëb ba ñuy sax moom moo wax ne ne koo xam ne nii bi ngay romb ci àddina da nga fay rombe imaan te mooy gëm yàlla ak islaam ak ihsaan ak waajib te mooy lu war ak manduub ak euh, mooy lu ñu sopp ak mu baax la ñu daganal as saalih al muslih li baax tey baaxal te mooy al mu baax mooy la ñu daganal nee na koo xamee ne nii bi nga nekkee ci àddina noon nga fi nekke maanaa noon nga fi rombe nee na kon sab saxukaay ëllëg mooy aljanna koo xamee ni nag ni nga fi ni nga fi rombe ni nga fi nekke woon ni fi jaaree mooy danga nga fay jaaree ci ak kufru mooy wedd yàlla ak fusuuq ay caay-caay ak yu mel noonu ak bokkaale yàlla ak euh, lu araamak ak nekk fi di di jëfandikoo lu dagan ba noppi baaxul maanaa di yàq te man laa yàqal nee na su ëllëgee sa kër sa saxuwaay sa saxukaay mooy euh, sawara wala a'uuzu billaah mhm. fii mu wax ne euh, ñi baax gaañu baax ñi ñooy jël yi baax ci àddina di ko yóbbuloo ëllëg ngir dem aljana waaw maanaa euh, loolu sëñ Tuubaa loolu sëñ bi wax na ko sax ci ci jaawartu axastu min axastu min duniyaahu zaadi lil jinaan waaw mooy loolu maanaa li baax ci àddina moom ngay jël yóbbuloo ko nag ëllëg waaw boo dem aljana mhm. fa kullu ma akunu zantifaai bihi ilal jinaani eh, fa kullu ma akunu zantifaai bihi eh, am na daal fu mu koy waxee ci munawiru sudur eh, lu ngeen lu ngeen gis ma di ko jariñoo ci àddina na ngeen xam ne ab yóbbal la foofu maanaa boobu rek moo dikkaat fii hmm. mu ne gaañu baax ñi li baax ci àddina la ñuy jël def ko seen yóbbal ëllëg yowmal xiyam bu ñu dem aljanna su ko defee nag kon buñ ciy jariñ ci àddina Euh, dañuy jàpp ne rek ab yóbbal la ngir ëllëg waaye ñi bon nag euh, suñ borom dafa leen di tëkku mhm. su ko defee bu ñu faatoo ay sax mooy mooy lekk seen yaram ci seen bàmmeel euh, tey duñ jege yàlla benn yoon ñooñu nga xam ne mooy saay-saay yooyu la ñuy yóbbaloo ëllëg mooy li bon moo tax nag gis nga leen ci fekk lépp waaw kon ginnaaw lu bon la yóbbaloo moo tax euh, duñu mën a duñ mën a duñ mën a duñ mën a duñ mën a duñ mën a nekk ci jàmm ba kere ñuy dugg sawara moo tax mu ne ginnaaw mbir mi nag nii la demee ko kon seetal li baax nga jël ko su ko defee mooy tax nga mën a ànd ak gaañu baax ñooñu ginnaaw gaañu gaañu baax ñi ci loolu la ñu nekk kon nag yow it jëlal lu baax loole euh, nga nekk ca su ko defee man man caa nekkaale ak ñoom waaye lay yàq nga xam ne baaxul loolu moom maanaam nga bako ak ña nga xam ne ñooy yàq ba noppi di yàqale waaw nga bàyyi kook ñoom te yow nga jël li baax rek ànd ak gaañu baax ña mu ne daal mbir mi noonu la tëddee kon nag na nga taqoo ak tuub tuub bu sell ak yéene ju sell ndax tuub bu dëggu euh, bu ko defee day réparer li jàlloon ci dundam day réparer li teew ci dundam it moo tax kon yéene ju sell ba tey day mën a defar li teew day mën a defar li ñëw ci ëllëg kon nag na nga farlu mooy tax nga mën a mooy tax nga mën a mooy nga mën a gañe ci wépp yiw mooy tax nga mën a am la nga bëgg mhm. mu dala wax ne li war ak lañu sopp ak lañu daganal te muy lii baaxal nee na loolu mooy yoon wi yi nga xam ne ku ci nekk moo la yóbbu aljanna bu fekkee danga fekk li war ak li dagan nga xëcce ko lañu waaw maanaam boo fekkee li ak la sopp nga xëcce ko lañu daganal te muy liy baaxal nee na su boobaa loola day daal di yomb ci yow ndax il faut rek boo ko xëccee day daal di nangoo ñëw mhm. mooy li yàlla daganal ci yow soo ko jëfandikoo ci anam gëm-gëne di ko dimbalikoo ci li yàlla waral ci yow ak la ñu sopp ci yow waaw su boobaa euh, def la war ak def la ñu sopp day daal di jàppandi waaye li araam ak lañu ñu sib ak la ñu daganal ba noppi euh, mu doon lu la yàqal nee na loolu mooy li nga xam ne ko ci képp koo xam ne yaa ngi koy def rek jàppal ne gëmal ne yaa ngi ci yoon wi la yóbbu euh, sawara wala a'uuzu billah waaye nag bu fekkee da nga puus lu araam ak la ñu sib nga puuse ko la ñu daganal tey li li li li liy baaxal hmm? nee na su boobaa eh, lu araam loolee day daal di puusu day daal di àndu waaw la ñu sibit de daa di puus day daal di àndu ba dootu la jegeeti waaw ndax suñ borom moo ciy dimbali ndax eh, comme niñ ko xamee rek la xawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim amul menn pexe muy tax a mën a topp wala menn kàttan muy taxa a mën a jaamu lu dul ne da nga koo jaare ci yàlla sukkandiku ci yàlla waaw kon boo góor góorloo ci li yàlla daganal ci yow nga jël ko nag di ko jariñoo ca li yàlla li li nga jël ko nag euh, daat koy dàqe la yàlla aramal ci yow ak la yàlla la nga xam ne dañ koo sib ci yow su boobaa euh, loola day daal di dàq loolu day daal di àndu ndax yàlla moo la cay dimbale yàlla moo la ciy dimbali mu ne képp koo xamee ne nii yaa ngi topp ndigalul yàlla ah suñ boroom dalay daal di def buur maanaa suñ boroom dalay daal di eh, teg ca kaw waaw nga xam ne yow da ngay bokk ci gaa yi gën a kawe ñëpp bu fekkee da ngaa bàyyi la la yàlla tere ba tey ah euh, da nga te doo dootoo bokk ci ñi nga xam ne dañuy xollee ko maanaam da danga da nga doon ko fàllu te doo bokk ci ñiy xollee ko mm-hmm. mu dal wax ne yi baax masaalex yi intérêt yi baax yépp euh, boo boo boo ca nekkee eh, na nga xam ne yaa ngi ci yoon wi lu yóbbu aljanna waaye yi bon nga xam ne day yàq loolu boo ci nekkee yaa ngi ci yoon wi luy yóbbu sawara wala bismillah mhm. mu ne euh, secret yi te muy mbóodi ku ku xumpa yi Euh, maanaa mhm, dafa wax ne ki nga xam ne dafa soxlawoo yàlla wàcce boppam dëgmal yàlla di tuub ci mbooleem sikk yi nga xam ne ma ngi koy def mu di mu di mu di mu mu di ko tuub waaw nee na kooku moom la suñu boroom di wan ay xëybu waaw moom la yàlla la di wan ay kumpa yoo xam ne nii nit ku ordinaire kese maanaam moroomam ba defut loolu euh, loolu euh, moom du ko mën a am waaw mu del wax ba tey ne xol saa yu wëndeeloo ci di xalaat boroomam bu dellu see rek day indaale ay maanaa day day day day indaale ay xaybiyaat maanaam mbiri mbiri fàdd yu kumpawu yoo xam ne nii sunu borom moo koy xamal ak ay ngëneel waaye nag bu fekkee eh, ba mu wëndeeloo daa bàyyi boroomam ne nekk ci yeneen waaw lu bokk ak yàlla nee na kooku bu dellusee ay sikk ak ay ay ak ay caay-caay rek la ko indi kon di xalaat ci sa borom moo gën ngay xalaat ci eh, maanaan nag sa moroom <laughs> wala ngay xalaat ci yeneen mbiri àddina ndax boo xalaatee ci sa borom mu jural la njariñ ak xéewal ak tawfeex boo xalaatee ci sa borom nag ak yeneen yeneen mbir yu bokkul sa borom ay jafe-jafe rek la indil moo tax mu ne képp koo xam ne daw nga wuti aw wuti lu baax lu baax lépp day day daw wut si la waaw waaye bu fekkee dangaa daw nag di wuti leneen lu bokkut ak lu baax mboolem lor yi day daw wuti la kon nag na daw wuti yàlla ndax yàlla ci moom lay yiw wépp nag mu ne képp koo xam ne da ji lu baax la nga ciy góobe mooy njariñ rek waaw njëriñ rek nga ciy góobe koo xam ne danga ji lu bon la nga ciy góobe mooy rëccu waaw fii sëriñ bi daana koo faral di wax nee na daa wax ne eh, yenn yi nga xam ne suñ boroom daf ko ko maanaa daf ko ko tere waaw xam nga sëñ bi dafa am nag ay mbir yoo xam ne ni digganteem ak boroomam la léegi-léegi mu am yoo xamee ne nii yow nit yow yow yow nitu ordinaire gi mën nga koy def waaye bu dee ci moom suñ boroom daf ko koy tere waaw mën nay doon yu bari nag waaw yoo xam ne ni mën naa nekk ñaar fukk ak juróom-ñett mën naa nekk fukk ak juróom-ñett ba moom daal ñaare ku ko xam sëriñ bi rawatina mbindi sëriñ bi loolu danga ko ci gis lu bari waaw léegi léegi nag mu wax fii ne yenn ce mu wax fii ne yooyu nga xam ne yooyu nga xam ne eh, dañ ma ca xajru woon maanaam dañ ko ko tere woon ne ko bu ko def wala nangam ak nangam nee na coono ba ca nekk jeex na mooy loola suñ borom dindi na ko te dootuma jublooti waaw léegi nag li ci des nag mooy fayugu yàlla ci loolu nga xam ne nekkoon naa ci muy lu metti amub coona ma muñ ko te yàlla rek tax ndax moo ma ko digal waaw ba yàlla teggi ko te dootuma ko tegaat léegi nag ko li ci des nag nee na mooy fayu yàlla ca loola waaw te nag suñ boroom bu ma cay fay nee na du am fu mu yem waaw du am fu mu yem waaw euh, daf may jox rek di ma jox di ma jox rek ba faw moo tax mu ne intaha kaddul xajr bila ntihaain ilayya abadan intahaa maddul ajr bila ntihaain ani abadan mhm. mu ne li gën a ci jamono ji ñu toll li gën ci jamono ji ñu toll mooy soxlawoo woo ñaari yii te mooy mucc ci rekki gu ngëm waaw ngëm ni mu amee solo ah yàlla defal la ko fii ci àddina nga sàggan ba sa ngëm de nga sàggan ba sa ngëm dañ fii ci àddina loolu kenn ku nekk war na war nay ñaan yàlla musal ko ci loolu kon li gën li gën ci jamono ji mooy soxlawoo ñaar yi mooy di jéem a sàkkoo mucc ci rekkiku ngëm waaw suñu borom musal la ci ngëm gu dañ waaw avant ngay faatu <coughs> ngëm gu dañ ci àddina loolu yàlla na ci yàlla musal ak sàkkoo mucc ci di gunge saay-saay yi bu ëllëgee nga di leen gunge nga di leen gunge ca euh, fañ jëm te mooy sawara nee na ñaar yooyu daal mooy li nga xam ne euh, nit ki soxlawoo loolu war a gën a soxlawoo fexe ba ngëmam du dañ fii ci àddina fexe ba bu ëllëgee du bokk ca ñay gunge saay-saay bu ñu saay-saay bu ñu dem sawara waaw nee na maqaama mi gën a kawee ci yàlla ci jamono ji ñu toll mooy dëkkal tawxid te muy wétal yàlla nga dëkkal ko ci sab xol ndax lu bari ci nit ñi nee de mën nañoo faatu génn àddina te dañuy bale ngëm waaw lu bari ci ñoo nit ñi ba tey euh, bu ëllëgee dañuy bokk ci ñiy gunge saay-saay bu ñuy dem sawara wala bismillah moo tax kon mu wax ne yàlla mi moom lépp ah danga nga koo ko war a da ko da nga ko war a jox si lépp waaw te bañ caa dugal keneen waaw ndax moom ginnaaw moom moom lépp sequ la ak kenn waaw moom kese moo la moom moo tax kon da ko war a jox si lépp moo tax mu ne maalikul kulli laa yaqbalu asharika kon xam naa ñu yemale foofu waxtaan wi incha allah yal na yàlla may ak dégg ak topp ak jëriñu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sifadi bi furudin wa شكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي